moo sañ a fag tàmpaŋub chers internautes diaspora 221 di ci ànd ak waa Sénégal Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am contentement ak mbégte saa su di jàkkaarloog génn kon ni ñu koy waxee rek saa su ne actualité moo tax ñuy waxtaan waaye tey nag dañ ciy dalal la nga xam ne dafa xew Sénégal depuis deux jours mu nekk lu metti muy desee Maman Kiné Diouf Diaga di ko jaalee Sénégal yëpp ndax Sénégal yëpp a ñàkk di ko jaalee la famille Seck plus particulièrement ak à Wally Seck tey nag ñu ciy dalal Sidath suñu newee Sidath Thioune ne Sidath bu Thione Seck mais suñu newee Sidath Thioune ne Sidath bu Wally sekk kon moom it ñu ngi ko koy jaale bu baax a baax a baax Sidath nuyu naa la. ki ne maa ngi lay fay di la aw awa euh, maa ngi jégalu awa maa ngi lay fay euh, di la ziar di nuyu say internet yëpp waa Dakar yow euh, di bëgg aussi waa Sénégal Buzz yi fi nekk yëpp muy sama xarit El Euh, ma di wax comme ni nga ko tàmbalee rek waaw suñu mooy nuyu Sénégal jox leen seen wàccuwaay ak ci lépp lu nu mënta nekk mais di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di wax ni kullu nafsin saa'iqatul mawti euh, li ko waral mooy une grande perte euh, nen am au Sénégal muy mamaa Diaga muy sunu yaay dama naan mu Mama la. voilà moment nationale voilà trè bien yàgg mën naa ne ñëpp la juróon te lépp lu mu séq ak nit yéen ñaar yéen ko séq au fait donc ku wax ci jaaga rek da nga naan kon jaaga kii rek xanaa la gën a xaritoog ko man loolu la yàlla dogal ci moom mu nekk vraiment une grande perte dans pays euh, di ko jaale Sénégal di ko jaale vraiment toute la famille Faramareen di ko jaale waa Ramadaan yëpp mais plus particulièrement mon frère Wally Balago Seck mi nga xamante ni que moom xale bu ndaw la mais dund ci trois ans yi lu extraordinaire au fait maanaam il la perdu son papa il y a pas longtemps sa grande sœur nga xamante ni moom moom yi dani yaay la ci Wally Seck donc euh, ki nga xam ne mooy guy gi mooy trésor bi mooy mooy sunu àdduna mooy sunu lépp muy Mama Diaga waaw moom moom moom moom nu mu mujj moom moom nu mujjee def moom vraiment gisuma Sénégalais bu mu touché wul. parce que si yëg naa ko yëg naa ko ndax man damay seeti Kine Diouf damay dem këram lay weekend damay dem seeti ko bu koor jotee tamit dama koy yóbbul suukaru kooram. ak relation bu particulier ak Wally mais sa relation ak Kiné maman Kiné dem si yàlla maman Kiné relation bi nan la demee woon parce que mbokk la Kiné sama mbokk la ndax euh, ba may mujj ba mu fa y a pas longtemps ma dem fa euh, ñuy waxtaan noonu ci couloiram fi muy toog noonu ci couloiru këram on s'est même parlé ba ma woo sama yaay paas ko ko euh, mu naan ko yaa may jox sagaru njaam euh, boo gaawul ñëw man dinaa ñëw mu partagé ak sama yaay xam nga nag mag ñi lu ñuy xam ñun xale yi sax xamuñu ko mu xamal ma carrément ni que ni nag euh, yow kii nga nekkal kii mooy sa mbokk kii mooy sa deret te loolu tamit coon yàgg na ma ko wax coon yàgg na ma wax na ma si daal ñun ay mbokk nanu yow sama maam ak sama maama bokk yow ci man nga bokk loolu yàgg na ma ko wax tamit coon heure bu nu loolu nag bokkoon na tamit lu gën a dëgëral sama diggante ak moom euh, ndax lépp dañ ko xool ci mbokk loo xam ne ça c'est en dehors de la culture en dehors de la musique euh, Kiné Diouf Diaga euh, moom bu ñuy mujjee waxtaan c'est-à-dire bëgguma sax ñëwaat yooyu parce que la nga xam ci moom ci lu baax rek war nga ko mën a wax te yaakaar naa ne am na la nga xam ne xam nga ko te tey sénégalais xamuñu ko ci maman Kiné. maman Kiné daal xam naa ni sell na xam naa ni baax na xam naa ni jullite na xam naa ni yam na palaasam maman Kiné nekku ci ay rumbaay ak i ngumbaay. d'ailleurs Thione wax na ko ci way bu rëy ba mu ko wayoon. kon ki sa gërë ki la ki sa jëkkër gërëm wax ci yow lu mu baax loo xamante ne que mit mit dootu ko daj ci àdduna pour waxal la ko moom jëkkëram mu jëkk ko ko témoignal soog a dem kon yaakaar naa lépp lu nu wax ci yaay Kiné ci lu baax ñu desal ñu des na ndax coon waxal na ko lépp amul lu ñuy waxal Kiné loo xamante ne ko coon waxalu ko ci lu baax loolu nag moom moo ko liggéey nekk jigéen bu brave nag. mais jur nu quoi ñun ñëpp jur nu ñun ñëpp euh, temps yi ci gannaaw Wally joué na ba ma daje buntu këram dem ba ay boobu il faisait ay cinq heures du matin ma ne ko Wally ana ana mère mu ne ma mère mi ngi Paris ma ne ko man dimanche bi dama doon dem gàlle mu ne ma non mi ngi Paris ma ne ko nice amul problème parce que man la doon dem gàlle parce que man léeg-léeg ma toog ay dimanche doxantu fa ndànk kenn du ko yëg mais Wally mën naa wax ni. ñàkk na yaay ju baax yaay joo xamante ni que moom rek juru ko ndax ma euh, maman Kiné nekk na yaay joo xamante ni que ku wax ci moom danga naan kii moom la jur. lan lan lan ngeen mës a seet yéen ñaar la nga xam ne yéen ñaar rek yéen a ko mënoon mu def ko mu impressionné la wala mu def ko mu bett la. <laughs> album état d'esprit ba ko Wally di génne. waaye dafa organiser conférence de presse ci biir kër gi mais avant loolu ki na man damay ñëw di ko seet si mais heure bu ñuy def conférence de presse bi danoo dem ba sama heure liggéey jot ma ne xaar ma dem rajo def sama job ñëwaat su boobu ma demee ñëwaat ñëw naa fekk conférence de presse sax jeex mais dama ñëwaat ci kër gi fas foo sama kër la ma ñëw jaaga moom ma mu ne sidaat kaay ndeysaan boobu moom moom mi mi ngi fa Aïcha Fat Saw maa ngi gis ni image yi aussi Mamito Mamito li may wax ni fekkee na Mamito moo géré fans club euh, waaw Faramareen man jaaga ak Mamito noo toogandoo war a déglu intégralité Euh, euh, CD album état d'esprit ñun ñetti noo toog di ko déglu ñu déglu ko de un à zéro ma ne la ba mu jeex jaaga bougéwul fi mu toog ba ñu déglu album ba pare mu jóg mu yëkkate album mu waali mu jóg taxaw mu ne ma sidaat mu jóg taxaw mu ne ma album bii dama bëgg nga jàppale sarak bu baax a baax yow sax duma la wax ndax sama doom nga nu ma juree la waaye laa la juree ma ne ko mais maman loolu mooy logique mooy loolu mooy lu logique sax dama koy def may tourné waali yëkkati xaalis bëri boo xam ma ne ko non non maman jaaga déedéet mu ne ma barki Seydina Mohamed boo ko julul duma la ko baal man ne ko maman ma je suis pas là pour ça mu gin ci Seydina Mohamed ni lii boo ko jëlul duma la baal ndax moom si rasulilaay rek la bëgg mais xaalis ma. dama bëgg nga jàppale sa rakk ma ne ko bien sûr je vais je vais soutenir mon frère t'inquiète amul problème parce que waaye dafa neex a jàppale parce que aussi moom xale bu yarul bu baax la mais aussi tamit il est il est social comme toi day def lu baax wërsëgam mu ngi koy bokk ak sénégalais yeeg ñëpp te xale bu ndaw la mais maman Diaga li ma mën a wax ci moom bëri na ba ci Alaaji Mbay sax dan fay àndandoo dem seeti maman Diaga. yow maa ngi toog ci wéeru béy ñu ne depuis dëgg la Thione ba mu génnee àdduna ba tey maanaam moom benn moitié moo daal di dem. mais dëgg la mort de Momy Seck. oui dal na ko yàlla yërëm. oui maanaam elle était effondrée. oui à un wax. am na ne la disparition de son n'existe plus te. ma xam ni ça c'est une réalité parce que depuis la disparition de Papa man damay gis ki ne damay seeti ki ne mais tu kii am na lu ko manqué lu bëree bëree bëree bëri waaye ki ne même bu waxee yow une wala cinq minutes rek day jooy kon da nga xam ne tout le temps kii am na lu ne ci xol bi gisoon nu mu gaawee jooy xanaa heure boo waxee rek day jooy day jooy tout le temps parce que moom dafa perte loo xamante ni que ci ci àddunaam loo xam ni xaaru ko woon kenn xaaru ko tamit ndax coon màggatul coon màggatul moom mi màggatul yaay ki mii mi dem màggatunu donc xajoon nañ ci réew mi au fait moo tax mu touché Sénégal yëpp aussi ki ku ko xool xam ni elle vivait plus parce que du mu dundee deux ans yi dafa gaaw ci moom mais nekk lu ko bett trop quoi moitié dem. muy jëkkëram doomam moomi mais écoute euh, lu jóge ci xool ci xool lay delloo ah. boo xoolee li ma naan papa coon ak yaay jàgg dëgg la ku xool papa coon moment bi mu dem ak Kiné moment bi mu ko rejoindre c'est ça la l'amour j'ai vu que que ni ñoom ñaar seen diggante dëgg la te yal na leen yàlla wane wanele ci darajey rasulillahi yal na leen yàlla wane wanele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 boo xoolee sama bët yi nii sax xam ne mënuma. non yow moom émotion bi moo la jàpp sax ba léegi nekkuma quoi au fait. ba léegi image bi mi ngi ñëw nii ma koy gis nii di xam nga nit li ngay partagé ak moom. ne mm-hmm. nga toog balaa nga koy gën a xam mu dem. ci la nag image yi di ñëwaat nii étape par étape ku ci nekk nag ak li nga bokk ak yaay ki ne ku ci nekk ak euh, li nga séq ak moom. voilà fa mu la féete woon quoi voilà. ci biir loolu ci suba ba tey ñu ngi gis benn image durant anniversaire Wally Seck bi. Mm-hmm. mu def benn cris de cœur. Hmm. ba muy def entrée di wax yaay jaaga namm naa la. Hmm. mais personne ne pouvait comprendre mais hmm. xamoon na lu nekk ci xol. oui mais gis nga Waly yi ma wax la benn affaire Waly dafa nekk xale boo xamante ni ku jara ñaanal parce que xamul tax dafa nekk xale ba pare mais moom responsabilité yi mu dëddu responsabilité yi mu gàddu euh, nga xool xelam ak xalaatam ak activité ay fonctionnement mu ñàkk papa ñàkk sœur waa liy tournée yi mu def yi temps yi yëpp nii ci des yi depuis le mois de novembre ba décembre ba janvier trois mois yëpp mi ngi nekkoon ci ay tournée yoo xamante ni que lépp yaay mi ngi feebar day dem ci diggante bi mën na jouer ba lépp ok mu dem Paris seeti maire bi te mu nekk xale bu am jom nag. sa depuis waali kenn mënu ko jot sax lay wax. naka nga ah, ni mu toogee France man gëm naa ni baay Fall la gëm naa ni gëm na suñu borom gëm naa ni gëm na rasulillahi yaa yaayam yàgg na ko wax bul tiit bul ragal te nag moom mission mat na gis nga ku yabul def ni waali def pour man nga yaakaar ni mooy lan moo war nekk taxawaayam euh, mooy papa mooy yaay. mais loolu yàgg na ko doxe bàyyil ba tey pour yaayam dem bu jël responsabilité yooyu da koo jël avant yaayam di dem boo seetloo dafa naa moom yaayam c'est sa fii c'est son mari <laughs> n'est-ce kon moom il a toujours pris ses responsabilités envers sa famille tey Wally njabootam noo ko wër. ay xaritam ay am di jàmmam noo ko wër mu nekk xale bu responsable mais man li may wax mooy nu yërëm ko nu ñaanal ko et puis qu'il soit fort c'est pas évident nga dund lii nekk xale bu tuuti ba pare saa boo xëyee nu yàqalu lu mel ni ndar. exactement fa xam nga bis moom man yàgg naa ko wax ci samay interview du pour lu ñaaw loolu pour lu rafet la nañ ko rafetal parce que culture ñaawul dañ ko war a dañ ko war a rafetal taaral ko xam nga lan moo lay wan ni lii lépp dëgg la aujourd'hui la disparition de Mama Diaga boo xoolee artistes ñoom ñëpp seen génération bi yëpp danoo reporter seen i reporter seeni i seen i activité ba ci ba ci sax ba ci sax euh, Youssou Ndour mi nga xamante ni c'est le doyen c'est le patron de la musique sénégalaise moom il a annulé maanaam ses dates et tout ça c'est du respect tout ça mooy nit ku nu ñàkk du nit bu ordinaire ci ñun nit la bu rëy rëy rëy ci ñun parce que jaloore ak manoor yi mu def ci biir Sénégal la ndax du ñun rek noo xam jaaga de tey am na ñoo xamante ni tey bu ñu waxee ci jaaga yow nga fàtte sa bos am na ñoo xamante ni bu ñu témoigner lay jaaga nga fàtte sa témoignage donc dañuy ñaan yàlla mu fayal nu jaaga wane la ko Papa Thion wane la ko Momy Dani wane la ko lépp luy xeetu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom moom am na ko mën na ko yàlla na ko def waaw te. rafet nañ ci njot tamit bu baax a baax ak Sénégal ñaan yi ngi koy ñaanal ko waay waay. macha allah Sida Thioune ah, li ñuy wax rek ci showbiz ba fan yi ñu ngi gis ay ay sëriñ yu naan deewu daa am lu leen topp lan moo ci tout cas daal dina ne kulli nafsin saa yi xatin mawti du loolu noonu wax mm. man de loolu laa gëm. yàlla mooy moo sàkk mhm. mooy jël mhm. léegi nag euh, ku am neneen noo ko interprété nga xam ni tamit sa diggante la yow ak sa borom rek parce que foofu neen war a tool léegi ci àdduna bi duma fi nekk naan la cest à fii la lépp lu nit di wax ci àdduna wala lépp lu nit def ci jëf wala nga wax ko ci lu rafet wala mu nekk lu ñaaw ah tu tu n'as qu'à prendre rek. est ah, loolu de sénégalais bu ko xamul tamit awa. Mm-hmm. dootoo ko xamati. ndax rafetal toogaay mooy lépp. fii koo ni àdduna du dara koo ni doo dara mu mere la. Mm-hmm. mais ku xool àdduna ni muy doxee. nga xam ni billaay doo dara ndax tout lépp ay jeex. nga am nga nekk milliardaire. am ay milliards yu bëri si sa ay compte am kër yu bari benn kër ngay tëdd bu dee néeg yi ne mat neen dix si benn néeg ngay fanaan bu dee lal yi mat neen vingt ci benn lal ngay fanaan ma ni yëre tubéy sa boo ci amee cent lu ci ne benn ngay benn nga ciy sol boo amoon ñeenti jabarit ci kenn ngay nekk par kenn mais ñeenti ñëpp du lóor àdduna dafa am ay jàngat ku ko xamul rek yaa ngi nax sa bopp ku àdduna nax nag ba àdduna moom la ah nga xam ni que yow nitu àdduna nga parce que loolu tamit dafa am am na ñoo xam ne àdduna jaral na leen lu ne voilà donc de ce fait que ñu delloowaat ci suñu xel ci suñu borom euh, jaamu sunu borom euh, jox ko la mu moom euh, fonk doomu aadama yi te def lu rafet def lu baax te nekk ci lu baax tey bàyyi waxalante lu ñaaw wala di jëf-jëf joo xamante ni que ëllëg buñ la ko waxalee wala soit mu seddal la ko ndax fii lépp loo fi def moom nañ lay seddal ëllëg ah. mhm. boo baaxee a ah, sa mbaax rek na ñuy wax mais boo defee leneen loo xamante ni lu romb loolu nga wane leneen loo xam ci mbokkul si mbaax ëllëg tamit loo rek nañ lay seedeel mhm. kon yàlla nu yàlla baaxal yàlla nu yàlla teg ci yoonu siraatal mustaqiim yàlla nu yàlla maanaam aar waaw loolu rek mooy dëgg. Sidaat ba tey dañuy ñëw ci témoignage yi nga xam ne ñu ngi koy defal sunu maman Kiné Diouf Diaga mm-hmm. te dafa am ay action yu bari mu daan def. maanaam ci sutura. Mm-hmm. te kenn du yëg. waaw démb dama doon jël Kouthia. Mm-hmm. ma ne ko Sénégal ñàkk nañ mais néew yi. ñoom it yàq ñàkk nañu. mais dëgg la mais loolu lépp nag suñu borom dina ko ko fay ndax yàlla moo ni leen fonk doomu aadama yi. lépp lu mu sàkk doomu aadama moo ko ci gënal fii gars yi dañoo réer mbir rek gis nga borom alal yi ñoom dañu waroon jaamu yàlla si seen alal yi de mais defuñu ko seen compte yi neen ko bàyyi seen compte neen ko bàyyi. boo mais mais moo tax man la Kine Diouf am na lu ne. Mhm. manqué wul dara. Mhm. Kine Diouf am nga ay millions di takk ooram comme ni jigéen ñëpp def. Mhm. di dawal ci euh, oto yi cher yeeg yëpp nekk ci kër gu. gu macha allah maanaam ko lu jigéen di am am na ko lu jigéen mel mel na ko bu ko neexoon di dugg ci avion yi dem Dubaay de gauche à di def comme yeneen femmes yi nekk ci ngumbaay yi nekk ci rumbaay yi defe naa de benn vidéo amul ay ñu gis ay Kiné Diaga ci ay ngumbaay ak rumbaay jamono jun tool ni amul fenn waaw moo tax ma ne la gars yi duñu war a jaamu yàlla si seen alal du ñu am xam nga mooy lan mhm. profito dimbali jaam ji mooy likki na jaaga di def tey am na ñoo xamante ni feebar neen ni ngi am ordonnance su mille francs wala 2500 mm-hmm. sax mënuñu ko jënd mm-hmm. nga gis koo xamante ni feebar na quinze mille moo koy faj wala 10000 wala 8500 kii bëgg lekk bëgg 1000 francs wala cent ni ngi koy gis taalibe yaa ngi ci mbedd bi néew du doole yaa ngi ci mbedd bi hôpitaux yaa ngi fi. nit ñoo xamante ni dañoo gaañu kenn xamul seeni mbokk te yàlla nee na nañ jaamu yàlla ci doomu aadama yi gis nga jaamu yàlla ci doomu aadama yi mooy lépp ndax suñu borom loolu lay reconnaître ndax moom doomu aadama la gën a fonk léegi nag boo amee sa alal yow defoo loolu mais bokkul ak jaaga jaaga day dem ci day dem camp xool lépp lu jigéen bëgg mu jël ko. yóbbu xam nga gis nga àdduna boo fi nekkee boo làqoon na si la sa ay si sa mbaax yooyu li ngay def moom la ñun di wax ndax yàlla moo koy feeñal même bu ci nit ñi waxulee dara yàlla mooy feeñal say mbaax yi nga doon def ci àdduna. nit ñi du ko wax de gauche à droite yaa ngi fi tamit dañuy bind de déglu ñëpp ku ci nekk nan gin ki ne moo baax ki ne moo ma defal li ki ne mooy sama yaay dañuy dégg ñëpp ngi wax. te mennum Kiné Diouf Diaga moo ko def nit bu làqu ngay dem di sang néew suturaal ko ba mu baax ak li ci nekk yëpp te sang néew bari nañ sutura de li ci nekk yëpp buñ ko waxoon il pare que àdduna bi tukki te du ku ne moo koy dëkku mu bàyyi am am beeg jël jël richesse beeg jël or yeek jël yére yi rafet yeeg oto yi rafet yeeg yëpp teg ko fële di ko investir si jaam ji waa tey anamu anamu tey mi ngi nii dem na mais ay jëfam la ko yàlla di fayee tey kon jigéen ñi dañoo am fu nu war a rawantee te bàyyi waxante gu ñaaw gi Sénégal talul lu dul alal ak politique kese. jeex na xaalis ak ngumbaay ak politique jeex na pour ñu def lu baax c'est rare wala lu ñu def tamit ngistal moo tax nu koy def wala xew-xew ngir wanewu looloo fi am gisoo kenn la majeure partie des hommes ou bien des femmes la majeure partie j'ai dit lépp lu ñu def defuñu ko te yàlla tax dañ koy def pour ngistal est-ce que nekku Sénégal foofu la tollu tey Sénégal fu mu toll tey mooy defal nit lu baax ngis ki ne Diouf Diaga de deful loolu mu ngi daan suturaal doomu aadama yi kenn du ko waaw mais yàlla ñu ñëpp ay mission lañu fi wàccee de mm-hmm. ñun ñëpp nu sommes des missionnaires même yow mi tey sa micro bi da nga bokk si ñuy doxal mission yi mm-hmm. sa micro bi yaa ciy def lu baax yaa ciy def safaan wa yaay xool li ngay génne pour ñu ñi di si jëriñu yaay génne li tax ñu ñi di yàqu fi àdduna lépp mission la danga bokk ci ñuy wax wala ñu lay dégg tey sa tur yegg foo yeggul loolu yàlla la du yow <laughs> dama lay wax. est-ce que da nga gën ñi nga xamante ne que ni ngi toog di seetaan wala di déglu noonu ëpp xel noonu ëpp xalaat noonu ëpp lépp ñun mérité wu ñu jox nu micro yi ndox ñoom noonu ëpp xalaat. comme buñ na ko joxee rek c'est pour des mission yoo xamante ne que yu ñu war jox àdduna bi pour ku ci nekk du ci mën a jëriñu. macha allah si daal am na solo mais balaa émission bi di jeex dañ ma bëgg ñu des tuuti ci Wally parce que démb depuis démb maa ngi dégg benn rumeur ñu ngi dégg rumeur sax du moins ñu ne Wally day bàyyi way xam naa ni daal euh, loolu moom euh, duma ko gaaw wax ndax nit lépp looy wax na leer. mais li ma koy ñaan mooy qu'il soit fort ndax moom c'est un missionnaire te y a des millions de personnes ki l'aiment li muy dund nii du moo ko jëkk dund Sénégal de ku ne dund na ko mais yàlla moo dogal moom mu dund ko ci trois ans yi tar yu metti te Wally il n'a pas quarante ans il n'a pas trente-cinq ans xale bu ndaw la nekk un responsable nekk ak ay rakkam gérer njabootam gérer famille am gérer ay xaritam ay am di jàmmam lu nekk ci boppam bëri. il a toujours été un homme fort. Wally encaisse beaucoup da ngeen koy gis ni il est souriant day ree rek moo tax mais c'est un homme qui encaisse beaucoup c'est un homme qui bu beaucoup. ñaan yi ko yaayam doon ñaanal nag ci àdduna mission yi muy def ci lu baax moo taxoon sunu su yaayam du ko ci gërëm ndax ci liggéeyam la teralee yaayam ci liggéeyam la defalee lu baax doomu aadama yi ci liggéeyam lay jàppale doomu aadama yi te yaayam bokk na ci loolu mu ko ci gën a encouragé pour mu continuer boobu mission te kon gëm naa ni. loolu du tax mu bàyyi. du tax mu bàyyi dina am. peut-être nag lu koy metti parce que ku perdre euh, euh, une mère c'est c'est c'est trop fort du ma ni waal dina way léegi xam naa ni dina jël tuuti recul pour parce que tamit c'est dur ah c'est très dur waale actuellement man may ñaan Sénégal ku ko mën a réconforter nga réconforter ko ku ko jege wala soit nga nekk ak moom wala soit nga ak nu mu mënti demee nga réconforter ko mais aussi nu ñaanal ko parce que xale la nu ñaanal dafa soxla ay ñaan xam nu ñaanal ko mu dal ci jàmm xelam tranquille mais aussi tamit Sénégal nu soutenir ko nu jàppale ko nu taxawu ko nu nu ko parce que tey Wally amatul papa ak yaay de ak ak grande sœur mii moom mi tey Sénégal nooy papaam Sénégal nooy yaayam Sénégal nooy ay sœuram Sénégal nooy ay frèram il faut ñu xam loolu parce que tey lu ko gënoon jege ñu ko gënoon proche. tey ñooñ la ñàkk tey. kon Wally dina wéet wéet boo xamante ni que du du ay keneen moo ko koy jox ndax perdre un père une maire une grande sœur ci presque ci ay trois ans yàggul c'est très dur donc yàlla na ko yàlla may xolu muñ nag je sais que Baye Fall je sais que nit bu gëm yàlla la tamit nit bu gëm yàlla la. Wally dafa am yaqin ci Wally dafa am saayir am baatin waaw loolu nag su ma ko waxee man xam naa fu ma ko teg dafa am saayir am baatin Wally su ni nit bu gëm yàlla la man xam naa li may wax lan la. looy di leen gërëm di sant yéen waa Dakar 221 ak waa Sénégal Buzz di leen wax ni Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na ñu yàlla taxaw te sunu yaay ji di mamaa Diaga yàlla ko yàlla xaare àjjana. yàlla na saraxam yàgg ci ay njabootam di ko jaalee encore une fois mon frère Wally Ballago Seck Wally sois fort sois fort loolu rek laa lay ñaan soit très fort Sénégal ñëpp nañ sa ginnaaw lii yëpp ñu la koy jooylu ñu ñëpp ñu ngi koy bokk ak yow muy sa mbokk muy say xarit muy say am di jàmm mooy ñu nga gis mooy ñi nga gisu xamal ni naqar ak tiis bi yëpp ñu koy bokk ak yow mon di ko jaalee encore euh, Mohamed waaw Mohamed Seck vraiment moom aussi il m'a même impressionné Mohamed moom moom dafa dama ne kii dafa am na lu mu jël ci jukkoy turoon doom rasulillahi billahi dëgg la Mohamed euh, il est extraordinaire nit bu gëm yàlla mais nit bu am yaqin mais nit bu fort di ko jaale Aliou Seck Aïcha di ko jaale Bintu ah, Fat Saw di ko jaalee toute la famille Faramareen Mapenda Seck Assane Ndiaye Ousmane Seck Kéba Seck la famille Seckeen ah, vraiment bàyyiwuma kenn ku lim da ngay juum mais du ko jaalee aussi tamit la culture sénégalaise du ko jaalee Youssou maa jigéen Youssou Mari waaw ndax moom tamit ah, ku amoon affinité la ci ki ne jaaga rawatina papa coon mi nga xamante ni que amul nañ ay relation ñoom ñaar maa ngi ko koy jaale moom Ndoura Wale Mbégane Ndour ma koy jaale bu baax di ko jaale Ismaïla Lo Ismaïla Lo voilà voilà yàgg neen daje ci kër gi moom moom xam na père Ismaïla yàgg neen daje kër jaaga di partager ndoo ak moom ensemble ma di ko gërëm bu baax a baax mais di ko jaale aussi euh, Omar Pène ak euh, Baba Maal et vraiment ak euh, tous les artistes du Sénégal bàyyuma kenn ku lim juum gis naa ni ñoom ñëpp mobilisé wu neen et la nouvelle génération d'aujourd'hui ma ciy jiital Pape Diouf seen mag vraiment gis naa témoignage yi ñoom Sidi Diop ñoom Tarba Mbaye ñoom El Hadj ñoom Momo Dieng artistes yi yëpp gis naa même ñoom dañoo mobiliser wu bàyyi seen activité yëpp ndax Mama Diaga loolu mooy solidarité nii nag ngeen war a mel pour toujours. est-ce duñu bàyyiwaat jours après waaw mais loolu nag nañuy woowee de l'hypocrisie pour dire les choses loolu mooy de l'hypocrisie et j'espère que ils sont pas hypocrites j'espère que c'est des gens bien c'est des gens yoo xamante ni que ku ci nekk am nga yëg-yëg ci sa xol dañ ne mbooloo mooy doole te jàmm ci la lépp xaj gis nga àdduna lii bu buñ ko xoolee rek nu xam ni jarul nu xëccoo am-am dafay jeex te gis nga nit bu génn àdduna loolu mooy secret sunu borom bu mu am te kenn xamul kañ la ak naka la ak fan la kon na lépp di rafet ne naan na lépp rafet nekk leen benn. Euh, di saafonte euh, te xam ni lii mooy gën a doxal la culture sénégalaise ngeen xam ni waali seen waali la ëppalewul ëppalewul leen ci moom dara de waali waali Sénégal la loolu la yàlla dogal donc euh, moom mon frère yàlla na ko yàlla may xolu muñ man daal loolu lay ñaan waali moom yàlla na ko yàlla may xolu muñ bu baax a baax a baax a baax te Sénégal yépp nu soutenir ko nu jàppale ko. nu taxaw seen doom seen xarit muy la Faramareen le chanteur du peuple Wally Ballago Seck yàlla na ko yàlla taxaw te may ko xolub muñ commune euh, Sida euh, ci moo yooyu rek la ñuy daal di jeexale ah di remercier Sida c'était pas évident mais nga nangul ñu defal ñu témoignage yi nga xam ne moom nga xam sa moom nga xam si Ndeye Fatou Diouf Diaga moom nga amoon ak euh, Ndeye Fatou Diouf Diaga mais plus que particulièrement ak Wally ko Seck ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax ah diaspora 221 la woon ak waa Sénégal Buzz ñëwoon seet si Sida am ak moom waxtaan ñu ngi leen di jox rendez-vous à très